vous savez xam nga la manipulation ak euh, Sénégal de fi yàgg message bi yow jarul nga koy wax. Ah, ah. xoolal rek kii ñoo bokk ndey ak baay. Ah. mooy bi ñu commencé exige xoolal ñuy échange. Eh, ñëpp ñëpp bokk ndey ak baay. il a il m'a envoyé nga li ma ko dégg li ma ko tontu. Mhm. Euh, c'est juste pour dire que. euh, manipulation dafa bëri Sénégal si je peux revenir sur affaire Mbourkaat bi ñu évacuer ko. Mm-hmm. parce que euh, je pense que gis nga affaire Mbourkaat bi tu as vu coow li bëri na. am na ci ñu bëri ñoo xamante ne nii ñi ngi doon wax bon yaa ngi gis message ma la envoyé Abdou Mbow am na quatre-vingts terrains euh, ñii ne soixante ñii ne cent hectare euh, je vais pas dire le nom. Mm-hmm. de la personne mais Maïmouna un grand journaliste mm-hmm. boo xam ne day def une grande émission suivie dans une grande télé ah déglu ma rek parce que mi may dégg mm-hmm. dafa def benn émission ak benn responsable bu mag week bi passé di wax ne way di wax nañ di wax nañ bu tudd ne Abdou Mbow sax wax nañ am na cent hectares moo woo ko téléphone la personne journaliste bi ne ko tooñ nga ma ba ca kanamu yàlla parce que li nga wax ci mburkaat amul su ma la porté plainte suba mu dugg mais comme xam naa la et je sais nag bi mu koy wax xam nga. il était de xam nga non xam nga Abdou Mbow moom day jaay xam na boo nee Abdou Mbow nangam rek day jaay ak yooyu te loolu dañ ko génn ci publicité bi mu ne mu bi ma koy wax dama doon ruubee rek ma ne ko nag trouve le l'occasion de dire que naa la tooñ nga ma yaa ngi may jégalu. du ma wax trop peut-être il aura l'occasion de le bu boobaa dinaa si ñëw donc pour diir que sur Thiès may mën a du toog fii di wax am naa lii wala am naa lii parce que man yàlla dimbali na ma bi may liggéey waree liggéey liggéey na bi ma waree am li ma war a am am naa ko pouvoir am na privilège yoo xam jox na ma ko mais du ci sàcc du ci lu jubul à Thiès gi ma dëkk ñi ma dëkkal nekk samay xarit samay dëkkandoo am na loo xamante ni soo nee Abdou Mbow sax def na lii nañ la leen non non maa ngi doon kaf sax di wax sama Moustapha ne ko sa gars yi nga xamante ni ñi nga wax waxu mbuurkaat wax leen ku gis benn rek soo ñëwee ma tegal la ci beneen may la sama tur boo ñëwee gis ko soo ñëwee ma tegal la. Ah, maa ngi ko doon weddi ne mbuurkaat amoo fa dara weddi du question weddi dama ne. Hmm. man Abdou Mbow à le dis ici à la télévision mbuurkaat man je suis conseiller. à Thiès wa Est bi ñu joxee Thiès Est un conseiller m'a appelé même le conseil woo nañ ma ne ma am nga fi tere ma ne leen baax na may naa leen ko tere laay waxe à la ville jox nañ leen du gis nga le maire mu ne jox nañ ko 120 à la ville mhm. am na ay conseils yu mu jox je suis biñ ma woowee dama ne leen baax na bugguma avant boobu yaa ngi doon déggi ñuy wax ay désaffectation à Thiès temps wu Talla la mooy terrain yi nga xamante ne ni dëkkuñu si woon ñu jël di ko désaffecté man woo nañ ma pour désaffectation ñu jox ma gratuitement ma ne leen doy na may mënu su fekkoon ne am naa des responsabilité tey qui ma permettent ma def déclaration de patrimoine à su ma defee déclaration de patrimoine su doon nit ku am probité morale rek la ñuy fal duñu fal keneen ko dul man li may wax ni télévision laa koy waxee et le moment viendra un jour parce que tey Sénégal dafa am ay yoon yoo xamante nii dañ ne soo amee yenn responsabilité yi da nga war a def déclaration de patrimoine et tey jii du fi nekk naan diw am na lii diw am na lii tëpp ku nekk nag war nañ la mën a càmbar ne li nga am lu tax nga am kooku foo ko jëlee. mais non non non non non je reviens sur ça je reviens sur ça je reviens je pareeguma donc je pense que il faudrait que les gens ñu arrêter yenn yi nga xamante nii dinañu ko wax et je pense bu ñu ñëwee ba ci biir waxtaan bi am na foo xamante ni dañ ci dugg pour xam ku nekk exactement yow ban responsabilité nga am lan nga war a leeral ci biir réew mi kan moo war a leeral ak ku warul leeral. mais mais mais attends ma ma ma reprendre information bi. Mhm. man moom gannaaw ma setalee sa bopp sama bopp nag. Mhm. damay def inquisition en ce qui te concerne. bu la neexee alors on dit mbuurkat. Mhm. Euh, on cite beaucoup de responsable tout à ne am nañu fa ay délibération. Euh, ñu ne Abdou Mbow. jox nañ ko cinquante parcelles. le maire de xaaral rek ma ñëw waaw c'est pas xaaral le maire de la ville jox nañ ko 120 parcelles. waaw dama c'est pas moom nangu na ko. waaw mais c'est pas loolu ñu wax. waaw oui man 50 dama ne c'est jox nañ leen. 50 c'est pour man en ce qui me ah. concerne c'est pas et mieux encore quand je préparais l'émission. Euh, am na ku ma waxtaanal mu ne ma Abdou c'est pas 50 parcelles. Hmm. Abdou Mbow a donné 8 hectares. Uh-huh. Uh-huh. yu mu morcelé waaw huit uh-huh. hectares yu mu morcelé jaay ko par euh, l'intermédiaire d'un d'un monsieur appelé El Hadj léegi kaa ma wax la benn affaire que Abdou cinquante parcelles huit hectares lañ léegi déglu ma wax la benn affaire télévision mhm. laay waxee parce que vraiment bëgguma ci son wax ku la wax ne jox nañ ma huit hectares ma morcelé ko jaay ko par une personne bi ngay wax noonu waxu dëgg te su fekkee ne c'est un homme na ko wax publiquement bu subaa ma porté ko plainte est-ce que c'est clair su fekkee ne la personne bi nga wax bi wax Maïmouna Ndour fay li nga ko wax tu es courageux wax ko suba dinaa la porter plainte mais cinquante parcelles waaw non déggoo li ma la non attends Maïmouna encore une fois de plus man kilifa la wax dëgg yàlla nekkuma tribunal te bis boo xamante ne nii xam nga leeral moom leeral naa mu leer nañ man li ma am Thiès wax naa nit ñi xam nañ est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai maintenant nag dama nekkul foo xam ne damay toog ñu naan ma am nga lii ak am nga lii dama ne man damaa jàng fa ma war a jànge liggéey fa ma war a liggéey acquérir illicitement li ma war a am képp koo xamante ni jàpp nga ne def naa loo xam ne naka sudul noonu yóbbu ma ci yoon. te personne mënuma yóbbu ci yoon waa déglu ma ci naka sudul noonu parce que dans ce pays je parle à la télévision kenn mënuma jël à défaut par rapport ak njuuj njaaj bu mu mënti doon. alors mbuurkat yow Abdou Mbow je le dis face caméra amul joxuñ la fa benn terrain. xam nga euh, encore une fois de plus dama commencé ne la muy mbuurkat ak fii xam nga ba tey waxuma la fii laa dëkk. mbuurkaat ak feneen ak feneen dama ne la responsabilité bi nga xamante ni man moom laa am tey ak bis bu ma amee responsabilité pour def déclaration de patrimoine je le ferai mais lépp li ñuy wax ci man ci waxu mbuurkaat c'est pas vrai et c'est faux foofu laa ci mën a yam ah. Abdou Mbow. Euh, non foofu laa ñu mënee may mënoo mënoo fexe non non non mënoo mënoo yem ci la xam nga mënoo yem parce que man non déglu ma non xam nga lu tax ci laay yem mënoo yem ci xam nga lu tax ma ci yem xam nga dama bëgg Ablaye Sow je l'ai suivi non du ma catégorie parce que xam nga lu tax du catégorie xam nga lu tax du catégorie xam nga lu tax du catégorie ñi nga xam ne ñoo war a catégorie par exemple je vais te donner un exemple non balaa y des gens non non qui disent que le président de la République les quatre hectares yi nga xamante ni moom la am à fële ni ñu koy waxati. Sandiara Sandiara le maire de Sandiara daf ko ko jox est-ce que du loolu moo tax ñu nommé ko ministre xam nga loolu les gens le disent mais est-ce que man wóor na ma ne ba xam looloo tax ñu nommé ko ministre oui ou non parce que le maire de Sandiara était chez nous pendant douze ans aujourd'hui il est ministre dans le gouvernement ñu ne président bi am na quatre hectares Sandiara. mais qu'est-ce qui s'est passé nañ ñu ko leeral. mais président bi dafa am courage def ko ci déclaration de patrimoine ne daf ko jënd à quinze millions. waa léegi man Abdou Mbow. bis ne daf ko jënd à 15 millions man bis bu ma amee moom moo ko yëgal Sénégalais ma man bis bu ma amee responsabilité. def déclaration de patrimoine je le ferai may mun a personne ne peut m'obliger à diir des choses yoo xamante ne mais xanaa xanaa leeral indiw la fi. am mais leeral naa ba pare li ma ci war a. xam nga leeral indiw la fi mais mun a li ma leeral xam naa ko parce que xamul tax man man xam naa sama bopp ñi nga xam ne semaine mandat wala ay responsable ak ñu ma nekkal xam nañ ma te li ma ci wax. xam nga boo nee xam nga boo nee li ñu wax ma concernant sur Mbour 4 c'est euh, chiffre bi mën na faux. mais ça ne veut pas dire que tout est faux. man man man je t'invite à être xam non man je t'invite à être catégorique soit nga ne. am naa temps de li ñu wax awma ma loolu lii lañ ma jox. wala sur Mbourkat je n'ai pas bénéficié d'un mètre carré à mon nom. li ma am à Thiès. waaw ak ci réew mi. du fii laay toog di ko wax parce que je l'ai acquis de manière licite. mais am nga. non dégg suuf kon Mbourkat. non dégg nga Mbourkat boo fa gisee sama suuf nga ñëw ma may la ko. mënuma faa def siège dafa sori dafa àll foofu laa mën a yem. mën a yem donc moi je pense que il faut que les gens. am na ma wax ji déggoo li ma la oh leer na leerul. c'est les sénégalais qui apprécient déggoo li ma la c'est les sénégalais qui apprécieront. Maïmouna Maïmouna Maïmouna je suis clair et formel man je suis un homme politique man je suis un homme qui fait de la politique depuis très longtemps et j'ai de faire de la politique commencé gis nga bu ñu yaakaaree ne. yi ñuy wax nii ay seen réseau sociaux yi man je ne réponds pas des lâches su fekkoon ne par exemple dañu génn publiquement ay kilifa toog ne Abdou Mbow am na nangam su boobaa naa ñëw fi wax ak ñoom mais ay réseau sociaux ay ay déclaration ay nit ñu xamante ni off the record ak ay waxu suuf may Maïmouna du ma tontu lâche. le président parce que non déglu ma la non dama ne de la dem Mbourkat. non dama ne il s'est offusqué de la oh, manière dont les terres ont été spoliées. wuy ma wuy ma wuy loolu bu ko neexee na offusqué wu ci lu ko neex xam nga ñun faluñu leen pour ay offusqué wu gis nga réew comme ni ma koy waxee rek gis nga boo waxee ba ñu jox la ko doo wax ba defar ko te loolu dinañ ci ñëw ci biir waxtaan bi gis nga moi je pense que il faudrait que les gens arrêtent de créer des contre-feux gis bu ñu yaakaaree seen yooyu ñuy wax naan woy Abdou Mbow lii nangam nangam parce que le président du groupe parlementaire dina tax ma arrêté wax wala dara xam nga aujourd'hui tollaguñu sax foo xamante ni dañuy wax e je pense que buñ duggee ci waxtaan dinañ waxtaan gis nga may mun a moi je suis quelqu'un boo xamante ne nii j'assume tout ce que je fais te lépp loo xamante ni dama koy wax dama koy dama koy assumer mais Abdou Mbow euh, mbuurkat bu fekkee ne la ñu fa wax yépp am na tu conviendras avec man c'est c'est c'est c'est c'est c'est c'est scandaleux. ma ne li ma gëm mooy. lépp ah? loo xamante ni lépp loo. c'est c'est scandaleux lépp loo xam ne. Hmm. def nañ ko te mu doon loo xam ne jubul président de la république premier ministre am ak ay services am nañ ko jubanti. parce que ñëw fekk ay population ci seeni terre ñu jël popu euh, terre yi jox ko ay nit parce que seulement. ils appartiennent ils appartiennent au au, au régime. ba pare bàyyi ñi nga xam ne ñoom ñoo fa dëkk. inacceptable benn nit ñu jox ko. cinquante parcelles benn nit ñu jox ko. Euh, deux cent hectares. benn nit ñu jox ko cinquante hectares dégg nga vidéo Ousmane Sonko bi mu doon waxee. mooy quand il défendait ça frise le scandale quand même. quand il défendait tey bu ñëw xam nga moom ci boppam Ousmane Sonko moo ko wax mu ne le premier ministre mu ne nit mënul jox boppam terrain dafa am commission. am CCOD expliquer tout le processus parce que inspecteur des impôts la xam na nu muy demee donc je pense que wax ju bari jaru ko. donc ils ont les moyens. bu dee am nga mbuur kat dama ne. da da nga jaar ci procédure normale yi. dama ne nga bëgg a wax encore une fois de plus. doo ma wax loo xam ne bugguma ko wax nee naa li may wax ci mbuurkaat wax naa ko foofu laa ci yem. mais waxu fi lan nga fi wax. loolu li ma ci wax moom foofu laa ci yem lan wax. mooy vous n'êtes pas précis. mooy je ne réponds pas à des gis nga may mun a comme ni ma la ko waxee. nit ñi bu ñu yaakaaree ne les gens là dañu war a torox wala nit ñi dañu war a raser les murs wala nit ñi ils n'ont pas travaillé nit ñi ba ñuy liggéey tey jii am na ñoo xam ne ils sont aux responsabilités liggéeyuñu dama jàpp ne boo nanguwul répondre c'est parce que bu n'êtes pas à bu la neexee loolu neex wax ko. Euh, peut-être que am na lu ci am lu neex wax ko la preuve la preuve ah. nit wax na la loo xamante ni wax nga ma ko fi léegi c'est totalement faux. waaw c'est donc donc donc mun ma mais sauf que man dama taxaw ma ne je n'ai pas je n'ai pas un mètre carré. soo ma waxee soo ma waxee. moi je soo ma waxee. Ah. kan moo la ko wax. waaw ma répondre li nga bëgg a wax. non euh, ñi def. Euh, no non non man dama dama ne ma soo ma waxee ki la ko wax. waaw man ma wax la exactement lan moo am. Mbaye la moo ma ko wax. kuy man xaw ma sax Mbaye Sylla <laughs> xam Mbaye Sylla bu la neexee nga ne Moussa Ndiaye. <laughs> Mbaye Sylla Thiès la <laughs> dëkk. soo ma waxee kii la ko wax. Mbaye Sylla Thiès la soo waxee kii la non man je réponds pas à des lâches. non. c'est mais mais mais mais sur Mbourkat dañ ma ne c'est pas cinquante euh, hectares c'est c'est pas cinquante parcelles c'est huit hectares mais sur am na ko wax cinquante hectares am na ko wax am na ko wax cinquante parcelle euh, am na ko wax benn parcelle am na ko wax mille parcelles am na ko wax euh, soixante terrain gis nga bii ma woon léegi quatre-vingts terrain donc xam nga doo xam bu ci dëgg li ci dëgg moom mooy man Abdou Mbow amul dara loo xamante ni tey mën nañ ma ko reprocher par rapport à Thiès Dakar ak feneen xam nga boo waxee loolu mën naa mën naa ci am benn compréhension que en tant que citoyen dugal nga euh, ñu def délibération jaalale ko ci circuit yi jox la donc du point de vue légal est-ce yow yaa est ma mag <laughs> du point de vue légal non damay que yow ma mag sama mag nga ba bëgg maa wax loolu ma waxul du point de vue légal c'est que on peut ne rien reprocher mais du point de vue moral quand même mun nañ la reprocher dara mën nañ la. moi eh, on ne peut on ne peut absolument rien me reprocher du point de vue moral comme li nga beneen bi lan la. légal légal. sur mbuurkaat. dama ne mbuurkaat ak feneen laa la wax. waaw baax na l'avenir nous. l'avenir nous jugera.